dooree ndax Manchester United gëjoon na dem Ligue des champions waaye ak Ole Gunnar Solskjaer ba mu fi ñëwee daaw moom lañ ko naroon a dàq waaye moom la waxoon mooy politique sportive bi mu bëgg a teg mooy jël ci nga xam ne mooy xale yu ndaw yi daal di dem def ñu nekk soklam yokk ci ñaari joueur gis nañ Bruno Fernandes ba mu ñëwee ba léegi nekk na attaquant bi gën a décisif ci championnat Angleterre rawatina ci Manchester United ànd ak Didier Drogba bi nga xam ne ci gaañu gaañu la jóge woon ñu ay jamono ñu ne day jóge foofu ci Manchester United mu dellu si indi ne ñu jàpp ne jamono ji Manchester United ci porte bi ah, comme on sur le fil la daal di ñëw ci njëkkante bi ndax dafa dóor Leicester dóor bi mu ko dóor moo tax nag moom mu dem Ligue champions moom ak yi xam ne mooy